The show that comes your way every Wednesday here on Gambian Talents TV. We step out of the box. We talk about issues that are happening in our surrounding, around us, things that are affecting me, her, and you watching. Every time we talk about issues, sometimes we talk about, uh, for the past weeks, we talk about nepotism, we talk about language barrier, we talk about different other issues. And today, either I want us to go outside the street. I want us to feel the street today. What is really happening on the street that people are not talking about? Just to remind you, this is your Beyond the Line show. We will step beyond the line and talk about what you don't want to talk about or what they don't want to talk about or we will talk about it. So today, Ida, I want us to talk about street begging. I know the word is not that friendly when you talk about when you say street begging. It's not a word that someone can digest easily but it's a most discussed topic. We should talk about it because street begging is something that is rampant in the society now. Everybody, if you are going home, you, you step outside your house, you will see it before you go home. The difference is the reason why we want to talk about it. How it was before and how it is today. Welcome back once again to the Youth Band, to the Beyond the Line show with me, Ibrahim Jambang, and my beautiful partner here, Ida Kevin. yes ibrahim jambang daf may neex torop suma toge fi di def beyond the line show waaye nak sa jikko man waja na hadisi parce que you talk talk, talk talk I mean journalist so leen bëgge togn rek jox leen mic ah, ba tay rek di leen jaajeufal ci seetaan bi ngeen naa seetaan Gambian TV di leen wax na ne sen beyond the line show bi la xamna naa namoon ngeen ko nag waaye ah, teexa teexay rek ñu jàppoon waaye ñëwaat neen fii nag ah, toog ak yéen nar waxtaan ak yeen si waxtaan yu ama ama am solo comme nuñ koy faral di defare rek beyond the line nek na show bo xamne ni daf fi ñëw rek toog nar a jàllal leen bi euh, képp ki nga xam ne nii gis nga dara si réew mi nekkul di dem yoon te ñemewoo ko wax wala yaa ngi koo wax waaye yaa ngi koo laam-laamee si suuf bi nii ngay déggee lu leer nañ Euh, waxtaanee neen fi nag topic yu am solo comme ni ko jàmbang waxee euh, waaye tey nag dañoo génn si mbedda bi génn si street bi xool lan moo fa nekk di xew ndaxte street bi lu bëree faa xew waaye bokk si nag tey di li nga xam ne nii moom mooy ñi dee taxaw si mbedda bi di saraxtu am na si ñoo xam ne pàkki wuñ làggi wuñ seen cër yaa ngi mët sëkk mënuñoo dem liggéey seen morom yi waaye defuñ ko ñu ngi toog si street bi di ñaan comme ni ko jàmbang waxee rek bi nag tey ñu toogal leen fii man nag moom ñu nar leen naa indil topic bu interesting jàmbang ko defee rek ma bàyyi la nga nuyu wanteeg sama mbokk yi maninkroli anangona seniyata fa tammitade ayre keɓe fomo comme a fo ñaami mbaɗigol mbaal contena mbaal jeyina mbaal tindira mba falale ko a biyando laani son kamin fenagale lokun lokun a ñin lokun tambilal dum ma fenagale ɓaw kuɗol kena mi yalongo mate bari mbaal hake ɗanna mba falale hay kadu bat hani kabi muruntanala jamma continue ka biyande laani fena comme biyande laani dalta ka kale ñaamen a ko nga fo ñaame rek a wo lokun tambilal ka kaca keñana kaca kumbaɗigol mi yalon ko nga fanna jam allah ma aɗum mbiɗen naata noon ko fi alga finde silo kam fana ga jiiɓe muna fana ma keerin silo kam miyalon ka jarta ka fo an ah, sita fana na na, na kisikisiro ye atandi na komin ko miŋ mu ñinti sadadano silo kaŋ miŋ ye a loŋ ko a muŋ kuuti miŋ ye a loŋ ko a kete a kete kuuti miŋ ye a loŋ ko a sembo wararin baa ke saate kono niŋ ye a jibe komanto fo wa komanto sadadano sadadano muŋ kulati miŋ ye a loŋ ko a niŋ ye a je silo kaŋ a muŋ ni ñeti molu ma molu ma muta a ye problème molu ma muta kuubaati bari sayinte ŋa kata taa ñaameŋ wole le ye atindantol ko bi anga ŋa wuli ni mole mo le la ŋa kaca ŋa kuwo kaca ŋa hakkilol feñoo kaŋ a muŋ mu ye a ko komi muna muna sakinu any possible solution wala feŋ o feŋ sa keno a kuwo kamma ŋa a bawo kuolo mi alon ko aba keka ñamen sayinte ngana ko kekal ñamen nu a so wala no bi beyond the line so natana ñam pour ɓe siyale ka koñin kaca ma kuɓe jaba kesa wotale bi mbiɗa silo kan ne ni mol fana kaca ɓawon ɗon dammata silo no wala ñanga be fale ga fote ga fote fonta fana ga molla mol hakkilol ñininka mol fana ila jeero fo mole yaje ñaadi le i e fana hakkilo ila e ila e, tonko fo mole a ila miralo ye min mira kuuro ba min kaca kan i fana ila miralo feñeji ɓawa momo rek ye jansa ayɗa ñun tan jewsi biti ga jansa ñu lu ñoy wa jël sa ñii lu ñëw wax. ankay ah, yëpp si ñaar sa gis naa ne tay xaw ma ku lu nekk di jël olof classe waaye mu mm-hmm. ngi def lu baax ah, waaye nag man it war naa dem jël man ninka classe su ko defee rek nga siije nga man ninka kango diyaamu fo salong kami fo ah mm-hmm. salong ah, ntemalong because damay gis sumay wax dama <laughs> ntemalong is I don't know <laughs> yaa waaye soo soo soo soo waxee nag débli dama dee dama dee xam yow kii lan la nekk di wax mm. respond baa day nekk problème waaye yëpp si jàng bi rek la lii nag mooy yóbbu Gambia kanam naam waaye ba tey comme ni ko jàmmang waxee rek euh, tey nag ñu toog bi di waxtaanee li nga xam ne ñu ñoo nekk si street bi euh, di ñaan muy xale muy mag muy ndaw muy paa am na si ñoo xam ne nii boo leen gisee ñu ngi toog si puus puus euh, one can understand waaye comme ni ñu ko lay waxee disability is not inability am na ñoo xamante ne nii soo ko xoolee throughout the ñu ngi laago seen cër yaa ngi bañ waaye ñu ngi create something so extraordinary ñu ngi aan a decent living te nekkuñ di génn si biti di ñaan di saraxtu waaye si Gambia bi fii nii soo fi ñëwee da ngaa gis ñoo xamante ne nii sax euh, dara dal na leen if one sees them the person will will be able to understand ne waa kii moom am na lu ko dal am na reason sam lu tax mu génn si sibiti di ñaan sarax euh, waaye like soo jëlee yoon yooni Sukuta bi Sukuta traffic light nga ñëw pipeline nga ñëw Westfield nga dem euh, fii um tuddaa Tipagara Serekunda amin da nga ko dee gis ñoo xamante ne nii dara daru leen lii dama ko witness in different cases dafa am benn bés maa ngi doon ñibbi ma awee euh, Tupa garage ma fekk fa benn jigéen mu gis ma mu ne ma jànxam doo ma may lu ma dem lu ma paase aw ma lu ma paase te kooku dara jotu ko. I can imagine dara jotu ko léegi I was just testing whether kooku ndax dafa bugg a ñibbi wala buggut a ñibbi den ay ma jox ko ten dalasi moo joxee ten si ba pare ma taxaw di ko xool den moo taxawee di ko xool di ko observe ba mu yaaga keneen rombaat mu ne ko bro dama may ten dalasi damaa ñibbi you see so it's like su ko joxee keneen su ñëwee mu ñaanaat ko keneen su ñëwee mu ko uh, te jigéen boobu ma ko xoolee man suma yaram dafa daw te dama ko yërëm uh, dama ko yërëm in a sense ne street begging du métier hmm. nekkul loo xamante ne nii danga see mun a dëkk for reeba man na ma ko dee wax su fekkee ne maire paa yi ñu toog puus puus puus mën ñoo dem marché Serekunda di jaay xob wala di jaayantu ay minti wala ay gerte saaf wala ay lii di si an di seen living waaye not yow nga dem def ko especially léegi dañ day gis ah, xale yu ndaw jànqa yoo xamante ne nii dara dara dara dara jotul leen ñu ñu ñu nekk si mbedd bi di ñaanantu di saraxtu téye seen pot di saraxtu di yëngal seen coins amin lan moo tax gars yi ñuy war a def loolu noonu loolu nag soo ko xoolee jàmbang behind it there so many factors dee pousse waaye noo mata lu ta loo noo mata lu la mën a lu la facteur bu la mënti affect si sa life foog naa yow as a as an individual mun ngaa take up responsibility bi nga ut ways in which yi nga xamante ne nii di di nga ko mën a solval sa boppa like let's say yow tey jàngaa nga yaa ngi amee yaa ngi jógee fa a poor background amuloo ku la defaral lii amuloo ku la defaral amin yow yaa ngi amee sa sa sa cër yaa ngi correct dara yaaxawut si yow soo jëlee ndox sax nga dem jaay you will have something soo jëlee dara nga dem jaay you will have something waaye déedéet ñoom daal dañuy wax ne the best way like comme ni ko gën a yombalee rek dangaa dem si biti rek sarax ngir yàlla maa ngi ñaan sarax and then ñu may la loolu nekk na loo xamante ni I think it's it's it's it's it's skyrocketed in our country and and and xam nga lu ma. Sana Sana Samate, um, lately we have been seeing street begging, it is getting rampant in the society. It is different from the way it used to be back then and now because you will see someone who is able and then can do anything on his or her own but then still will decide to be on the street begging. And now other people who are disabled cannot even have what they want because people are scared to give. So how do you see street begging now and before? You know, bro, before and now is very different you know what I mean? Uh, as you see, the country is not moving. Uh, even me, when I'm disabled, you know, to be disabled, it's not me that. It's not my intention to be a disabled. It's the God who decide that. You understand? So, but if you some, if you see somebody who is disabled, it's your right to help the person. You understand? Because maybe for me, I'm fine, I'm okay. I can work hard for my money. I can look after myself and look after my family and other relatives. But when you are disabled, you cannot do that. You understand? Because some, they have leg problem, some they have hand problem, so they cannot walk. So this is very important. And you know, the country is very, very small. This country is very small. We are one family. You understand? Maybe I don't know you, but maybe you know somebody or someone with whom I know. So the country is very, very small. We have to help each other. Yeah. Um, pertaining to that, you saying people need to help each other. Maybe they are disabled. So sometimes people will say, due to experience, because they have experienced this in the past. We can, we talked to several people. They said, in the street, if you give someone money or you shake hand with them, they hypnotize you. That means they get into your head. They get they do some things to you that you can give them anything that they want. Even you are not willing to do that. So that is the reason why they are scared to give money. So what do you think about that situation? Uh, anyway, everything you have advantage and disadvantage, and people are not the same. What you are saying, even me, I experienced that in my life. Yeah, in Westfield here. That's very true is very, very rampant in this country because even me, I experienced it. It was, I think, two years back. Yes, I went to the bank to receive my money and then I met someone outside. And then I shake hand with the man in Westfield here. At that time, I, have roughly 6,000 in my pocket. But when I shake him the hand, and then they start to tell me the different stories, they can convince me you understand? So that I can give them something. So before, before I will go, go on to that. You know, I saw one, one man came just stand in front of me, greet me. I shake hand with him. He say, you know, I'm going to Brikama, but I'm a businessman, but I don't have fare to go. I say, yeah. I say, okay, for me, I have $25 here. I give him a $25. And then but he start to telling me different stories. And then he can convince me until I know that definitely I'm out of sense at that time. So they convinced me. I give them six thousand dollars. The six thousand I received from bank. Swear to the God, I give it to them. What people are saying is true, but you know sometimes you can have the advantage and, uh, disadvantage. My belief is even now, if I see somebody who is disabled, I will help the person. Yeah, I have that belief because I cannot see my brother or my sisters, mom, father. They are suffering whilst I have something. What people say is true. But anyway, for my own opinion, still, if I see somebody who is disabled, I will help. That is my belief. Do you don't you think it will be a little bit better if we have less people on the street begging than we have so many people on the street? Sometimes they are able even able men, we see able men, able ladies on the street and begging. And do you think this is a good luck for the country itself? Because we don't have Gambians only coming in the Gambia. We have other people from other countries coming into the Gambia. So people are seeing, people are taking pictures that we are in a global world. Anything can happen. So it is not nice to be seeing our fellow sisters and brothers on the street. So do, do you think this is a good picture to the country? No, I don't think so. It's a good picture. That's why I said the government, they have a lot to do you understand what I mean? The government have lot to do because when the, gov- the government should consider their citizen. When we have good governing, I think this thing has to be stopped. But without good, good security, it will be rampant. As you say, these three begging, most of, most of them who did this, they are not Gambian, they are foreigners. Because you know the Gambians, the Gambians, we, are, we don't have that fit. You understand? The Gambians are, we are so lenient. So most of these crime, they, they are not Gambians. They are from other parts of Africa. So, but you know, because of why they are here, the Gambia is a peaceful country and it's a very nice country. Even now, I'm working at the hotel. Just I think it's three days back, I just came from Senegal. When I reached at Karan, I saw plenty, plenty, plenty people at the border. They are trying to enter. And you know, the country's security is everything, bro. Without good security, we are nothing. I'm living in Kololi. In last week, they attack one one one na, na, na, na, na, na, na Lebanese up there. They nearly they will kill this man. They attack him because of what? The lack of security. People are against this anti-crime. I think the anti-crime they are doing very good job because what they are doing is very. I support it. I support it because the time of anti-crime, all this criminality are not, no, no, no, no, no. We don't experience it. But when they say the anti-crime, they have to stop this and this and this and this. Blah, blah, blah, talking, talking, talking, talking, talking. You know now, you see the country. Too many problems, bro. We need, we need good security in this country. At this moment, it's very, very, very horrible we are in a horrible situation in the Gambia here because our security is very, very poor. The government have to consider that. That is everything. Without security, nothing can be possible. They can even attack the state house because the criminal, you cannot control the criminal. It's very hard. It's very hard to say, but the government have to do the solution, solution to it. Kamarati, the Kaniting Estates. Uh, Usman Kamara ngaji kumingu sada dano niaji be komanto uh, Gambia jani baje le minu alanko lanjutu tuola kake bake bari sayinte ngaje momi ya lon ko fon hani fe manke la iba iba kende yari ne jaro ba kende yari tous manke la bari sa finde silo kan katra sala dano la amete nyin kuje nyaade le sayinte amam beteya amam beteya katun ya jube hani keba koto nin tous tela ye dimbayal soto men yalon ko e, misal fe e dimbayal soto men be to patola aman nyan katalo silo e ka ka sada dana it's not correct aman correct aman correct mume mume because dunia tonya la limbo kebayata askeno fonnin kewɗo yaji ko ñinde ya tala talala keɓa ka na fonla ganiyoya ala ko aye ñinso fenna fine bari katalo silo ka ka saɗa dani woman beteya ku ñimmante asi banko to kuyanole asi to di bankole inchallah Uh, ah, foko preference naje ko modul ba fala kumingo ni aje buka sada di mola sai ka sila le kato ne kudo di ise bulo di mola fa ay ku ke la mi ko ise le fengol jorong be se gelo kudo be bulo yabe di ale ma kalamuda wala ka mol sila ni ba o sada dan lu bi mi ko fongo infinity le because imang imang imang tama no me lanjuro le be wala tane lanjuro wala re ka mi ko wala tane infinity silo ko pura sada dan wala e buka soto no so ite o ku nyale mol mi alan ko e ka mol tora ka kul ke le mi ko be le nafulo ci kala adile ma kalamuda well anyway kule mu me yalan ko ni momo kake ke a man beteya ka tumuna nan ko a man beteya folo folo folo ni te yalan ko ita ka ita tata moya kai ko ibe sada dani la ina mur ko take ku do ngani ya me yalan ko men ni silolu manta e mari la misilme man timma ka to ni la misilme timma ta ite wakala fo momo ni moye ngani ya ko e sonna fongla fine but na ma e katalo silo ke be sada dana wada ibe sada fana dana bulu ena muru kota ke ena kungani ya me ya lonko kome lo sabo ni wo kunyi malu it's not correct ha ama a wo ah, fanan ko man donga dul fanan je mini ya lonko ni ba findi ka gasa sadano yesa muso dol je adini muda bulo kolo ani ndiniŋo le ñoo bulo muta a be samba la i ndiniŋo yetata kan ndiniŋo ye kumandi faŋa a fo ye ko nso ni n kana paso lo jo ni ye ñiniŋ ka le wulula la ye a fo ye hina sirinjana so ite a mira komi ñiŋ amuŋ good picture de mi ko ka sen because ni ye jibe ka ndiniŋol involve ndiniŋol mi ye ko at the age of 10 11 ka involve street o kono kodi kukuo la amuŋ kule de mi ye ko a ñiñata le bam no ñiña non non amam ñiña man ñiña because diŋo ni ye soto ni to man sembo soto ka kulu i man sembo soto ka dunno karambuŋo to bari si moo soto no meŋ ye ko at least ibadi wala mu walla moo lemu me ko même fisaya meŋ senboo warata i se a diinoo le ye a kuluu kana kulu ni sadaadaanoo la fo ay mengo kono ay keba kono ay mengo kono a maŋ a maŋ a maŋ beteya fereŋ fereŋ fereŋ wo te bankoo too diya la parce moolu wo o la ne ñaa to kono ino ate kuu men si beteya haa mi ye kulo soto ka wo fondiŋ kele minnu ko tana ba la bo finti kaŋ siloo kaŋ ka taa

a ñiñata wol ñam bari kata ku keme yalon ko suñarol ni silol ni meya tapale yalu amam beta ni aje mola a kuluta kulu ñala kono a kulu ñamam beta ha uh, finally mona bas kele kuma labango de min be jibe kan kata man sakunda la ni banko fo be well be banko diamula mbe yamarlo kala banko gambia dinwulu mbe silo ñola lo ñaa ñimmala mbe man sakunda fana yamarla isi kuke silol men ni silol sita kadindiwulu kulu kulu ñaa ñimmala kadulalu lo place kendol dida kadi ni wonu sambaje ke karandi ni fanko eh, scheme central to ke kulu kulu nyaanyi mala ni mento nya fanu taw kono e baaji la ko mu banko ah, ah, la nyaato talta ha mbe de alaaj danfa ah alaaj fa ide sadadano kenya ya nyaade le e banko nyen sande ah sadadano nde a kenya nyaame no men jaato be kendare fentala anda sa dogo kenola amanya nakata sadadano ende kata dogo wala Yeah, but sada da no maybe ni ni kuranda wala sasa bele sa sada da la moli so because ita mano no e wala la njuro bela wo sa sada dano la but ni jaro be kendari i e ma ñane lola sada da no ka ino yenda yenda katale ye wuli do ko ni jaro be kendari fentela yenda do ko le a ah, fana jela comme ni ba findi kan silo kay sa musul do ja dingol bombo ay nana ngana dingo bita kan sada dano wal do bi je fana ay tara silo kan dingo ba sada dano nan yaani nin kay ba male akoy ba male ki um ni mun ide amare nyin abun kulere mi alon ka be dada banka ka dingo introduce sada dano la nin dingo mi alon ka man amon ke ba fon dingo mi do yarin ay ay dali kulo la nyin wo eto no manke nko mfana ka jel nambara manke fijo kendo de dal comme maybe for example comme likely time odol uh, kema katara jela so kuwol ka kole a bulu so lun kilin kilinol yeta no kuwo kole bula kole bulu no option yeta yemo dan mai biyu wata kela kasti bari kome ka lowa kan lala no wasa keno kasi tila no because time dol tof time ka di kyau lala fem buka soto holo buka soto doko buka soto comme ye doko nyini ma soto sifal comme lun kilin kilo yedde rek biyu yalan ko abidan do ferete je foy ni ma dane foy ita soto la ya dani fana wole fisa ino yeta ya sunya lun kilon kilon kolayal ko sodo life kono la ino komo sifa dole ke je mamira tan be tara wala no war kila hajo lo akalla la ino do dalo re keno a mbajele fana mulmi yalon ko ilan jurtale ba sada dano nyi ba do sada nyi ga bar sante sa ko mi ga kolayate bulle because that's what only finda that more than abukadila because more finance have come ikisa sila la kadi mola because ko dodila mola maybe abita la edo ku wala ku kele sita fe na bulo dila fa iba fendi la le man taw kamendi ala a wo be mi an ko ay more finance sila ete wo ko yanya dele a wo kay fo ngato ala bulu rek because a ah, ite yemo tara sira be sala la so ite sada di ala pour ala so ite malo mu mu mosi valde so no men la fana fo ngoto ala bul dal because ita lon no mu mosi valode fo ni kome ina da lon you know yeah so alma ale mbe de ma dal yeah jani mbita it's a mu yamar fo no fo ni kele min fe man kele bari ka duloro silo kan sala da no lay bokale ka da do kula ah fo ni kay mo fo ni ko yanta do ko da mala kele jaro be kendare ka da lo silo no be kule kele min man nyana kele na da ma ni be jikila ila jiko ba kayen na la because isa dol je fo isa jigila buroda so la fengola isa jigila burodal nafulo la la burodal nafulo e mo nyana e mo nyana yakar la la you know because ilo buroda ite jigita menna wala fengo no fata feŋ tete woto wala adiŋol le tam so ni be jigila buroda la fengo la you maybe ye jigi only 25 percent a kana ke 75 percent i ka understand so no fata adiŋol le tam ite feŋ te je i se la buroda la korra kono faŋ a ye baŋ faŋ you know le na ni la fe ye je ni la dimbal because a bee ka kele so moya kata dal nte muso be n bulle diŋo mbelluwa sola so ni ma kata n ka na mecoo muta nta man tara jikiri moo la bi na koto kele be tubaabu du le niŋ ye meŋ noye koo la ke ɲe bari bi nte faŋo la kam faŋ samba bu bukante samba diŋo be mbulu bulu musoo be mbulu bulu n belluwa sola i ka understand so moo ye kata daali no i kana jikoo bee lo mulu kaŋ nte aliou ndiaye loolu faŋolu be je bandiyel lewol ah, yo a ye ka meŋ fanaŋ fo meŋ ka moo la kodoyele mande o siyata jane no even telephone le jamfo onte fon be ben tan mona na ke na jane fo des ñing ñi ro ko do jambe siri ñana tay no ay malom fon fere ngana tay bulo di noto rek na na ño ko ndo ko nga dondo ko do la ene ko yo ko e, lafte dondo 10000 dollars la so ay kumol fonya ay kumol mem fonya si abada le so afta fadu dan kun kono no so ntara ntara pour kata dondo fo ntara nga action ta pour kata don ntara fo na so ko pour ka ko do na je so lokili so nanna tare ona na afonyo ko ete ka men to ko do men samba muna mu so nga explain we ona rafonyo fo yalo na banka no malo so anara fonyo sai jane be ko do be sambala tala na na 3000 dollars ni bol be akalam da jan na ranga 3000 dollars ka nga dela jan ngai ko ngolo soro no adu namna lon tildo namna lon suro do jo sanata to kuma de tere ka ablo di na ay ay so kabiru ko ta woni bite mo namna je nyala no ay number dina ko nga call no songana because aka ito laitan na kare company le babulu jang you know many alongo pulisi trosa bank account ol fele so ay kumol fonye ay so ndo trosta akonyo ko so nyana ko do tala tros bank bar bank soronta la so nyen 3000 on kata dakara sa ni naras monde ngadi oni bite mo ino maje yalo siara la om tonyal ol kay mo yes Uh, kabiri wo kete la um, nite nin kabiri wo kete la nin biite ma nin munata koy ko mbasada danol la i b'a dila la laban foyi la n ko hali bulo fɔ n tɛ ni miyɛlɔn bɛ dila o say no ni melo ni na ren kontong maybe ni, ni ko bulon na sometime fon dol beje no ka after dol ka kamfa bar ka explain na after ni melo ni bulon na buka bulon la no ya so sada dan lol mem fona ka yere sometimes kan ale kodo di mole te fon la on kodo be ka ko fona be kere ne no comme like batuta sifa e si kodo bonne wala do ne ko ko bro ma ko falonto so ite yela kodo diyala after yela kodo bila jifo ko lita da next minute itajan comme tapale le tina sa dunia fam kono pour être trop fan is problem you know so dolɓeje dano o je kolayala fanam ha dol je wom koleyal te no because you know jamano fana mantara yesiri nak toña toña you know donc ko man sona koɗi ko man sona so dolɓeje woltamu lanjurolte ba dolɓeje woltamu bandiyalte ha ñin kufulolam Ah, ete amira muna sakino kanyin kul be bonni bawo nyim kul re lan ko akolyara yetere finde kan moyna na ay dani ete ko baake kana pour ka ma ko ay mentora so ete amira ko min muna muna sakino muna sakino possible solution de lan ko niya ke asa nyin kul be banno ah alkay men ke wodro na si mol kulen no ala ah fal ko men ni ka bonne tele to ka fodulal mol kaaje mol si hakil to because eh kommente kayme ñumen sifa kedanta jang afo ñim bol beja nefa afo mol beja bira kedana you know because malon so by next time ni anata ko rek modo lol be haklot lata a ah, wo sifa la baba bar nunto normally sada ni adi ala be jolal ah, a bar say tapale sial ko dol be ye ko son do ko kal ko so dol fon be tanga dol lon silo kam ka sada because munati ni adi la e kata e ka jaay ta dolo sa o boy sifa la ndab ka sada di wala walla sara nga di la next minute nge tara silo be touri tuuri do la min ngowolo ko kono kay kon sara di la kote so yaalo wo sifale you pour ye believe la ko kola yalal yo bari ka alka kete ñaame mais wolɓe moolu kunindi la la a ko nyina pour mool yaalon ha wo si mool moolu kunindi no sada ko to isamu yamar kula solo no ka funding kele min yalon ko fanam fe manke la e balorin don ka si ka afa ko man e bando ko le tara sini silo kan ka sada dano ke ita mu yamar kula fo le ba wede fele mu ngere mu funding kele e bela do ko la e wuli so da eta ya fe fe har je min ya so so bi je bu ko so wala me bi e fama warate le to le fe ama e manyana ka ke e ka finde silo ka to sada dano le fe siade ti wole te mu yamar kula solo ka fo funding ke mu eh, eh o kai definitely eh dunia do ka duniya samba han banko ni lafta ta do ya understand so mo be nya natural e doko es ni atre lafta ite lafta man ni ko kam jutu na ni man lafwal e be wule doko ke yes because han han duniya dawda han tubabol ya lon ko nka bule no ma no e ka do ke so ni imari ni tara fo fo 18 years 20 years e na dogo le e na wule ta dogo anu mo nya na mecho ni nal ok karaŋo fana i si karaŋo ke bari niŋ karaw niŋ meccoo sama ñoo la it's very important so i e b'a ye niŋ skulin ba i la meccoo i si continue wala yo bari be siriŋ silo i be siri i e e mantara dookuu la fo i taa daanduro la i bita i kotomaal daanna walla i kotomaa la feŋo suuñaa walla ite i baamaa daanna walla i baamaa la feŋo suuñaa you understand yo bari be faŋ suŋ dookuu la niŋ i at least ite ite jigila moo la i be faŋ survive try noo la fa en andu next minute la family fana i be family bil noo la le i si musoo ñini noo le ye a sindi noo ye balundi noo banimanta doko eta muso yini nol eta sini nol eta balu nol ah so ela fito fon bekele lusis so doko wo mu wo mu fene de alon ko very very important for everybody chele mu muslim fon as far as fon ninja mu ri mente kay jato be kendare ah sadada dano because ko alquran no fon men fon ni ni eta ka dan e harjo alaka dandol ah men ka dila eta nyana ala nyana men dila akaw di la ŋo moye lonnale fana nala mais omen ka sata dani o fana nanta firin yes because si e ka men dani wo ka dilal ala bota lafala ite e taɓe dama taɓa tulo to nan so sata dani womu ku wo ala ma ala misilimo ɓe tanka o ma wo moo mi ala iman sasa kute la sata dani o kay non wo manke taman serte mais ala bedata non o kay wo manke taman serte kendete What is your name? I'm Blessing. My name is Blessing. blessings. I hope you will shower more blessings of it. Okay, blessings. Um, today we are out here to talk to people about um, street begging. Lately, we have seen so many people involved in street begging. Before, it used to be people who are disabled, and now we are seeing people who are able and then still out there on the street begging. What can you tell us about this? How do you see this whole situation? Okay, thank you very much. Actually, um people see begging as a means of survival, right? Most disabled people, right? But because, okay, this is Africa, and Af most African countries are still developing countries, and Gambia is a very poor place. It's a very poor country. Now um, we have so many things that we're not even that are not even up to standard. We don't have job opportunity. We don't have uh, food and stuffs like that. So people see begging as an easy means to get money because there's no job for them. So I think if the government provides job opportunity no matter the qualification. There are different jobs that each qualification can have. And if the um, if there are some maybe NGOs that can provide something for these people, they can start up a small scale business for them. At least it can help them get off the street. Even the disabled ones too. I don't encourage begging. Disabled ones can do so. They can sell nopal, they can sell fruits, and people will patronize them. It's just to sit down and you know do the thing. But because well, <laughs> this is the environment we find ourselves into, so we, many people don't have a choice. That's it. So, what advice would you have for the young people that are out there that are able and then maybe have the belief that the go- there is no job out there for them, the country is hard, so this is the easiest way to get it. Don't you think they can be creative enough to create certain stuff, to do certain things, to engage themselves into several things in order to get money than to go out and beg? Because you know, as a young person, your reputation might matter. You know, you go out begging, it might reflect, it might affect your reputation later. So, what advice do you have for youths like that? Okay, um, I would say as human, we should be creative, right? Even if you didn't finish your, your grade 12 or you didn't um, have the opportunity to attend the university, at least as human, when you sit you create something in your head. You think about what you want to do for yourself, and then when you bring it out to the public, you see that there are people that will be there to encourage you. The problem is that people don't really want to think, they don't want to stress their brain to think about something to come up with. So they, they rather go with the flow, what they have on ground. But then when people think about something, you will find that there are people that will be out there to help you. The government is not actually um, that strict. The government will be able to do something if the youth are like available and are ready to make a change themselves. Uh, thank you so much. And the, the, the saddest part of all is I is like parents you know, have dañooy jël seen doom yi. to mm-hmm. use them for me them do the street begging because um, body Sénégambia because loolu loolu loolu gis naa not once not twice So when su ma demee Sénégambia I went there like to loolu mm-hmm. it was late in the night so nga gis like two kids xale they are not even up to ten. ñu ngi ñëw soo rombee you ñu ne la oncle may ma may may ñu ñu dem jënd and then no matter how ma after madam then I have to come back because I don't understand mm-hmm. at a kid of at that age what is he doing outside and why where is the parents ma taxaw ma xool Yo ma ne ko yow ma jënd la lekka yow la yow xanaa xanaa yow ak kana ànd mu so the mom was sitting and they were out suñ amee ñu dem jokko ko so I don't understand why would you put your your children out there like so fekkee ne yow da nga xam ne like lii doo ko mën but please just bàyyil xale yi si yeah bul bul dugal gars because dangay miinal hale xaalis at that age kooku mm-hmm. su miinee xaalis at that age mu dem ba ba like at the age of 15 imagine xale boobu noonu su dee ba boori 15 years mm-hmm. su amutee xaalis they can do anything to get the money they can kill they can they can rob they can they can do anything they don't care the repercussions but ñoom ñoom dañ koy because they need the money mm-hmm. and at the end of the day it's not their fault you expose them to those things and soo gisee soo ko xoolee ay léegi ah, lii bi si mbéra bi dafa dafa war daw yaram mm-hmm. because da ngay gis ne ñu nga xam ne sax dañ over a need help duñ mun a am sara si nit ñi why because ñu nga xam ne ñoom dañ ñëw di use ah, that way pour pour sonal nit ñi di orders ñu nga xam ne dañ dee joxee sara yow su fekkee eh, yoo nag ni joxe ah, sarax yow nga ñëw nga dégg ak kii mu ne ay léegi am na ñu ne ñu ne nekk si dëkkam dañ leen hypnotize yaa so you see yow léegi doo joxe doo joxe sarax bëggoon naa ñëw ko dee dama ko dee faral di dégg waaye mm-hmm. man expérience ko waaye ñu bëri dañ ko dee complain like ne yi léegi óorul parce que na ñoo xam ko joxee like yow doo ak sa sago bara ngaa dem jël xaalis bi yëpp dem jox leen ko loo am leen ko li nekk na loo xam ne nii foog naa it's high time pour nit ñi ku nekk nga place sa part uh, pour ñu mun a génnee lii si dëkk bi mm-hmm. uh, Euh, am na benn time maa ngi doon déglu benn programme si radio bi euh, am ku kool mu ne like dafa gis benn euh, góor Guinée la jóge bu mu ñëwee fii nii moom defu dara lu di beeg. daf ko laajte yow lan moo tax ngay beeg dama loo jaay mu ne ko ne moom da Guinéen yaan noonu mu ne ko dama dégg ne Gambien si day so nice So génne see pour beeg rek dañ la dee may so. gis nga li nekk na loo xamante ne even ñi nga xamante ne nekkuñu Gambien suñu ñëwee beeg biir dëkk bi mm-hmm. because they have that concept ne suñu ñëwee si Gambie bi suñ beegee dañ leen may because Gambien si den seen seen seen seen xool bi dafa dafa dafa sof suñ gisee kuy beeg dañ laa yërëm ndeysaan amul kay ko sara waaye foog naa ne lii suñ ko bëggee génne si dëkk bi ku nekk have a role to play individually government collective or anybody si dëkk bi am na a role to play soo gisee nit nit su génnee di saraxu suba ba ngoon gisul ko ko ne dalasee ngi ni dina jóg dem uti liggéey mu dem def nit si ñëwee suba ba ngoon kii jox ko kële jox ko kële jox ko the next minute yaa ngi am loo xamante ne nii like nekkuloo di ko liggéey and then the funniest part of it is that <laughs> uh, am na yenn saraxukat yoo xamante ne nii they have their own bank account yes yes and it's like man I can imagine mm-hmm. yow ku la nekk di sarax kooku si boppam individually amul bank account amul xaalis lu mu am mu ko bëgg a chia ak yow yow nga dem jël xaalis boobu yëpp paak ko si banque at the end of the day xaalis boobu noonu because like man dama ko dee wax depuis time mu mënoon dem school boo bàyyi den maa ngi senior secondary school grade ten am na benn paa mu ma benn doomam ñoo dee àndal from grade ten up to now ñu si street di beeg I can imagine three good years saa bu ma leen rombee rek dama dee waaw xanaa ñii ñoom like for three years ñu ngee def lii mm-hmm. I mean three years or five years or whatsoever yaa ngee saraxtu xaalis ñu la salax noonu yëpp xam naa soo ko dajee at least you should go and start up something li nga li nga li nga xam ne nii it can help you Why you want to take it as an attitude you want to take it as as as as your passion and habit mm. nga nekk di ko def rek deliberately eh, eh. foog naa lii nekk na loo xamante ne nii war nañ koo bàyyi and then like comme noo waxee dafa am yenn période yoo xamante ne day jël seen doom yi di leen use di leen boole si street begging bi mm-hmm. nii like dama ko dee gis parents yi bëri dañ dee take advantage of Fridays Yes. like Friday wu jot da nga gis pireen boo xamante ne nii mu boot benn doom téye benn doom even xale suñu nekkutee séy sax mhm. dinañ leen téye suñ paree ñu ne séy yaa ngi yelluwaan even gars yi suñu nekkutee séy foog naa parents they have a big role to play xale bi loo ko miinal mhm. loolu la moo toxalee su magee te xale jàngam it's all about observation lu mu gis rek loolu la day def yow tey dem nga yóbbu xale bi nga ne ko ne kaa ñu dem ñaan sarax ngeen dem ñaan sarax ñaan sarax ñaan sarax xale bi su développé attitude boobu noonu ba mu mag attitude boobu noonu jikko boobu su ko su ko su ko maagaalee like pour mu génnee ko si moom dina nekk loo xamante ne dafa jafe trop te su demee ba tu stage ne country bi like comme other countries den ban street begging mm-hmm. xale bi dina dem def lo xamantene ni is not in it is not in accordance with the law of the land mm-hmm. dina ay dem sacha wala mu dem rob wala mu dem def yeneen nak su dul noonu man suma gisee xale yi like ci mbedd bi ñuy ñaan sara dama day wax ne yi lan la gaay di def ci street bi at this stage of theirs gars yi dañ a dem si school si di janga acquire knowledge mm-hmm. learn a lot I mean why nga jël xale bi yóbbu ko si street bi ne ko demal ñaan sara demal ñaan di demal ñaan di man xale bu ma tise si yoon bi mu ne ma may ma sara dama ko an sa yaay yes is a da nga war a laajte question boobu. mu ne da ngaa dégg yeneen like beneen bis dama doon dem tamit di sim ci pagaras ci pagaras mu dafa mel ni foofu mu nekk seen centre. Mm-hmm. xale bu góor bu ndaw mu ñëw mu ma sista dama may paas damaa dem Sénégal bi damaa ñibbi ma ne ko ne yow an sa yaay ma suma yaay dafa gaañ ma naa suma ko ñoo fa nekk gis nga soo dafa nekk loo xamante ne nii it's painful. ba pare soo ko xoolee xale yu bëri like there are some kids ñu ngi ko experience simply because seen yaay nekkuñ fi. te buñ ko defutee duñu lekka. Mm-hmm. like loolu dafa nekk loo xamante ne nii like uh, be it yen like yaa ngi amee xale bi yaa ngi ko mm-hmm. adab yaayam dafa gaañu wala yaayam mu fa wala nekkul fa xale yi should. we should just excuse them from street begging and then yaay si boppam si boppam ñun seen boppam ñoom ñoo war a jël street begging sax génne ko seen parce que I mean dañ dee wax ne some of them dañ dee wax ne Gambia soo fi defee business du dox man I don't believe that. non parce que even minti minti bu gën a ndaw dalasi dalasi soo ko jëloon teg ko si koñ bi def ko si box xale yi dañoo ñëw di la jox dalasi di jënda mm-hmm. bala ngaa taxaw si mbedd bi nii di la saraxa dalasi nga dundee sa ñaxa I guess that is the best thing that we should do uh, street begging bi na ku nekk war na a play sa part pour ñu génne ko si dëkk because mu ngi make youth si bëri to go astray ñu bëri ñu ngi seen lazy at the end of the day si ëllëgee xale bi liggéey xale bi du xam nu mu koo defee cause xamut ko mm-hmm. yeah yeah so comme dafay mel like easy money ko soo ko miinalee xale da ngaa da ngaa da nga koy like it is easy to get it. Mm-hmm. why would they why so su kooku su magee dafay foog ne like ok why would I waste my time pour dem liggéey suba ba ngoon when I can go outside on the street and beg and frame stories xale at that age mun naa frame story da ngay gis xale sax mun na la lii jot dama war a dama war a ñibbi dama a fay paas fekk fen demul fen demul fen dafay because For fee façon fen boobu noonu so it is very sad not just kii da eh, street begging they are not really begging now they request money from you because soo demee nga ñëw kii nit na la ma ngay ñaan sarax soo ko joxee coins dafay dafay change kanamam sometimes I do, they will even comment because my, my, remember there was a day ñu ngi si van so benn benn loolu boori suukura la sax si traffic light bi so ay dafa ñëw dafa ñëw mu taxaw mu ne sara yàlla so benn koto rek mu génne ay xaalisam bi rek mu jox ko coin mu ne ko yow tamit me, na my job. so gis nga I was like everybody was like eh. beggars with wow, choice beggars with <laughs> choice why do you need do you really need to know how do you really need to ask how much they should give you you said you are begging anything that I can give anything that my heart wills to give you that's what I will give you so why would you ask me lu tax nga maa jox lii so dafa mel like ñii dañ not bëgg a def métier. dangay gis soo agee beneen Johnson da ngay gis gars yi rang because boobu. especially pipeline pipeline waaw da gis gars yi rang every day ñu nga xam ne like maybe some of them are disabled but most of them are all. very good ñu ko jëf ñu ko def métier. ñu toog loolu loolu dëgg dëgg man I will not I will not love to see my my my parent or my relative doing something or somebody that I know may romb may gis nit yi ñu ngi lay ñu ngi lay sarax ñu lay jox dara people don't respect you at the end of day. Mm-hmm. like imagine like yow. nga God has to frame your life another way yow nga war a nekkal something else in eh, eh, maybe tomorrow how do you expect those people to look at you so it is sometimes it is important like you consider your your your your reputations bala ngay definitely. so you ñu bari dañ ñoo consider nga ñëw rek xaaral ma ma dem ma wax gars damay damay damay travel ndax suma halay amuñ lekka nga boot nga boot benn ne ne rek si guddi a kid a child a baby that's supposed to be inside the house sleeping nga koy nga koy yóbbu nga ngay dox si mom si naaj nga ñëw nga taxaw you are framing lies xale bi da xale bi lekkul ma ma ma ma ñu may ma lii ma jëndal xale bi lekka may ma lii ma fay paas ngeen ñëw ñibbi xale bi nii xale bi nii why would you do that why would you do that where is the father even there's, the father is not there, try and get them to anybody else. If you want to, if you, if you know that you cannot stop begging, go to someone who can give you. Work on the buga start a business, like a small scale business. Lunda so come knock away, jam in this, it's okay. Yeah. Because if those people can give you dalasi, dalasi, dalasi, then why not you can get the dalasi, dalasi mm -hmm. for mm-hmm. yourself? Mm -hmm. If I told you begging for thousands, like no hamna the fly job, thousands, so one can be like, okay, maybe that is worth it. But long na hamna sarah so edem sa so ame kula job twenty five dalasi sa lulu santa yalla so why would you why would you do this to yourself going out legi. You are ngi koy def so this is something like uh, Gambia is really suffering from it and then people need to understand that everybody have a take on this everybody have a stake a role to play every Gambian su ñëwee tey nga this is a very key, ok dara jotut ko obviously su ñëwee joxuloo ko mu dem si keneen joxul ko mu dem si keneen full day amul dara the next day amul dara daf koy stop dina ñibbi dina ñibbi mu find a solution but mm-hmm. this cannot be a solution it's not like ñu ngi wax ne ñu ngi maybe ñu ngi uh, discriminate the street beggars but no we are trying to discourage them from this because it is our own sisters, our own uncles, brothers. our own aunties, our sure. own brothers are doing this. Mm -hmm. So we love our Gambia, we love our Gambian people, so we don't want to see them begging. Mm -hmm. We don't. It's not only Gambians living in the Gambia here am na ñu xam need dañuy jógee from outside. and some people come here for a reason. Some mm-hmm. people come to see what how we are living. Some people come to see what is happening in the Gambia. They buy those stories. They go outside. They make money out of us. They make money from those things. So loolu dafa over our sad. How can people come? You know, ñu ñëw for example you yaa ngi beg maybe I five dollars five dollars You mu ñëw from maybe Europe or other country mu ñëw mu story mu see your yow mu five hundred mu dama bëgg dama dama dama bëgg am ngay ngay ñaan si si mbedd bi da Sure. Because yo, 500 boobu no mille balaa koy am is 5 days old. sometimes one week balaa koy am so su la joxee loolu wala mu jox la benn thousand dollars rek yaa ngi cool mais bi nga ne nga ne mu ngi cool mu mu mu lay to lay topp nga nga def lu mu lay vidéo and kooku mu ñëw that person is making millions and millions out of those videos. Mm-hmm. you you think that that money yo yang nga fa ne like ok I made I made I made that waaw I made it Yo, you don't make anything you just kooku dafa la jox a tip of what you can do yourself. So you don't need to remind you what you can do better yourself. So it's, people need to understand that. It's very sad, Jambang. Mm -hmm. Like story Bini is a real life story. It's true. But like I'm not gonna mention the place, the name, and the like. But there is this particular family. ñoom propose te noonu leen dee def. cause dafa am seen yenn relatives yu dee jóga seen dëkki kaw yi sax. Mm-hmm. ñëw stay foofu noonu propose te pour dem street begging. so dafa am benn bés di beeg ni benn borom moto taxaw. Mm-hmm. Uh, jigéen yooyu nekk di explain dafa gaañu. amuñ lu ñu def si kër bi amuñ li amuñ li soo góor boobu noonu desired pour mu pour mu pëccësal leen ay maalo ay diwlin ay soble and everything mu eb leen si moto bi yóbbu leen gaay seen kër soo góor bi bu mu demee ba si gaay seen kër dañ dafa réalise ne jëkkër bi deewut bu mu ñëwee di latte góor bi di question mu ne laay comme sista si lii la gaaw lii la góor bi mu ne la ñii de seen jëkkër deewut maa ngi nii soo ñooñu at the end of the day gars yi fi mu toll nii gis naa gars yi ñu ngi daaj seen uh, cantine di jaay lëjum yu sew yi nii amin ma ne man dama ko dee wax ma ne góor bi nii waroon nañoo yaagati see moom pour moo génn naa discourage from lii te léegi soo leen fekkee fu gaay ni que ne la ñu ngi jaay mm-hmm. ñu ngi seen soble seen légumes yi nii di jaayantu si si si si si koñ bi ane na ngaa gis ne ñooñu waa koñ bi foofu noonu dañoo génn si di jënd si si si ñoom la gaay di nduggee te yaaga neen yaaga neen di dem di dem si street bi di deeg mm-hmm, ñoom si yaay yi doom yi sët yi everybody would be aw especially Sukuta mm-hmm. Sukuta traffic light dañ fay xale yi si gars yi day engage ak ñoom seen bopp sax is not safe parce que tali la. tali tali la moto yaa ngi daw anyhow moto bu taxaw rek nga daw yëngal sa pot moto bu taxaw rek nga daw nga sa pot amiin gis nga man na ma ko dee wax ma ne utam xaalis benn neexut si. non even soo demee si street bi di beeg you need to run after people. pour jox la xaalis. Mm-hmm. balaa ngoon bi di jot di nga soona ba bëgg a dee te soo xoolee effort boobu noonu is uh, e, uh, génn si biti di dem ñaan. foofu ngay gën a spend moo effort dan nga liggéey sa liggéey like soo ko defaree sa jaay da ngaa toog benn place di ah. jaay nit di ñëw di jënda mm-hmm. waaye in the case of going to the street ngay dem di beg yow yaay dem di run after people may leen ma sarax may leen ma sarax ñii di la xeelu ñii di la jaan ñi dina def I mean at the end of the day sax kenn du la respect especially somebody ki nga xamante ne nii yow you are a full fledged youth bi nga xam ne mun ngaa génne si biti dem xool ni sa morom yi am na ñoo xam ne ñi ngi dem si gaare ni di jënd ay salade ñi defar ay géeja ñi di defar ay yéen ñi génne si biti ñii di apply different kind of métier mun ngaa dem def loolu noonu as well mun ngaa create something different waaye yow doo ko def de yow dara jotut la ñëpp xamné na dara jotul da nga gëna rek takasa tanka wala di pretend wala di fen te gis nga street begging daf la through true street begging ni si adobe attitude bo xamantene mo nek attitude do do do do mun wax dega sa àdduna because like so many di fabricate man li moma dal mm-hmm. suma yaay li suma papa lele wala suma jëkkër li wala suma jabar lele you want people to feel sorry for you yeah you want people to say ndaysan balal len ko ngeen dem ko ngeen defar ko li I mean loolu noonu soo ko defee su ko mënee asan attitude si yow loolu doo ko doo ko mën a bàyyi. cause dafa nekk loo xamante ne dafa sax si yow moo tax laay. street begging meaning like dafa am ko fom sona wax people were laughing about it but it's true mu ne GRA den war a door di tax street beggars and it's true. it's true I mean yow xoolal yow imaginal ku establish sabam di jaay yow nga dem tax kooku ak nga xam mu ngi taxaw si mbedd bi ku romba mu ñaan xam nga ne kuy ñaan kooku mooy ëpp xaalis obviously mm-hmm. parce que ñaata nit ñoo la amee yow ñaata nit ñoo ñëw jënd si sa soppi mm-hmm. den foog naa ne ñoom tamit suñu leen noon tax ku nekk ñu ñëw ñu ne la fayal juuti wala fayal lii amin doo gisaat benn street beg fi lii parce que kenn du bëgg a ñaan xaalis at the end of the nga jël xaalis bi di fay tax di fay tax waaw koy bàyyi soo toogee ba ko assess ne waaw man lu ma nekk def nii bala maa dem si biti di ñaan mm-hmm. di fay tax di def lii I guess it's better ma def ni comme borom bitig yi ma dem ubbi at least ma fayee li nga xamante ne mm-hmm. maa ko nekk di liggéey tax waaye gis nga like loolu GRA suñ ko mm-hmm. street begging bi dafa over wàññeeku si dëkk bi yeah that is one way to eliminate yeah that is one way to eliminate it waaye like suñu leen bàyyee ne free will tey ñu ngi fiir ëllëg ñu ngi fële gannaaw ñu ngi fële gannaaw ëllëg at the end of the day am na si ñoo xamante ne sax ñaan ñaan du leen dee du leen dee yóbbu de laay mm-hmm. ñu bëri den dee wax ne moto su ñàkkee xëccoo wante moto bii ñii den dee wax ne yeneen apprenti la ñii den dee wax yeneen nit yi la ñi ñeneen di proposé dañ fa dee duñ fa dee ñëw ut moto sàcca ñoo moo fa yóbbu waaye am na si ñoo xam ne tamit dañ fa dee taxaw di sarax saraxtu yóbbuwut leen fa sàcca bagage yi yi ñoo fa yóbbu gis nga soo dangaa gis ne street begging bu gaay ni ko def ni si street bi mm-hmm. mu ngi ëmba bëri tey mu ngi jur lu si dëkk bi tey gis ne gaay dañ nekk di ñàkkaloo chance ñi nga xamante ne sax they deserve to be yes to be given to be given yeah deserve leen pour ñu génnee dara jox leen ñu ngi leen koo yaaxal loolu la because yow fekkee ne yow yaa ngi def loolu noonu nga ñëw ñu ñu ne laay paa yi dañ lay hypnotise nga gis paa bu nga xam ne amul lu mu tànkam yi dam bañ loxo yi dañ bañ mu ngi toog si puus puus yow nga bëgg a paa boobu ñëw mu ñëw mu ne la mu ne la jox ma lii obviously yu da nga sel bi dafay dem mm-hmm. eh, ñu ne ñu ne paa yi léegi soo joxee gars yi ne leen dañ laa dañ laa def dara da ngaa jox lu nekk so yow maybe doo ko jox te kooku noonu maybe the person needs it so much so because of loolu dégg nga wala because of ñeneen yi nga dégg ay ñi moom kay léegi dañ ko bëgg a def métier wala lii ko joxe. now street begging is difficult Guys, yi gars yi seen bopp dañoo dañ xam loolu because it's very hard for you to get money now people don't want to give because people are scared to give so no no no, and and uh, like lii it's not it's not just affecting them it's affecting the the, the surrounding the environment Sure. yi ñu ngee génne every day people kids are seeing what is going on mm-hmm. so if kids are seeing a an able a young man or young woman standing on the street begging kooku tamit su teg toogee xale boobu nu mu toog mun na mun naa dem mu influence ko mu toog kooku mooy mu nekk si moto mu gis ñu nit ñu koy jox xaalis is getting free money mm-hmm. xale boobu mun naa toog tamit moom mu ne naa school mu dem taxaw si mbedd di ñaan wala mu gis moromam mu nga xam ne mu ngi taxaw ak yaayam mu ngi mu ngi mu dem mu def ko so this is not good it can influence our kid it can create so many things in the country that we don't need man lu ma believe la like ñi ngi wax ne sàccakat comme noo ko waxee like boys yi la si mm. garage bi and some sometimes they are they they are they themselves ñu ngi ñu ngi ñu ngi fa they are present mm-hmm. they can be there purposely to to go and pickpocket people mm-hmm. so loolu moom everything is possible you cannot know ñu ñu gaa la leen bëgga and then there was a day am na benn bés dama doon dem si mbedda bi maa ngi romba yenn booy ñuy toog si gitu bi mm. benn booy si gars yi mu ne ma sister dama faj foofu paaw ma gëstu xool ko xool ko xool ko man ko bro yow yaa ma tane den mm-hmm. bu ma demee ba si yoon bi ma ne I mean, what is happening in the Gambia? Yeah. Like, if an able youth like this cannot get up and go and struggle, hustle for for for himself, mutuak fikuro my sister don't want my pound, bro don't want my pound, dude don't want my pound. What is some something is wrong somewhere? Mm. Because like nobody didn't know what dëkk bi amul liggéey mm-hmm. ba does doesn't mean that da nga war a génn si biti di ñaan sarax dëkk bi you can create lige for yourself like dama lay gis ñeneen ñu dee def tire recycling. Mm-hmm, mm-hmm. pono yi soo ko jëlee nga defar ko defar ko ba mu nice teg ko. people will really appreciate it. yes create something yeah because they will be like xale bi dafa creative. Mm-hmm. creative kii mu ngi def lii kii mu ngi def lii de waaye yow xeeb nga loolu noonu yëpp de even suñu la gisee like nga téye pousse pousse sax like man dama ko dee wax ma ne am na yeneen youth si Gambia yi some of them. ku ñëw taxaw kanam nga ko dama jël puus-puus dem si marché Serekunda mbaa dem puus dafa toj sa naam yi daf laa slap parce que daf laa wax ne yow maggutool ni man ngay wax loolu maggutool ni man li maggutool ni man li de waaye yow si puus-puus ko day def most of them are from other countries and then they are making millions of dollars of course so yow as as a Gambian mm-hmm. bala ngaa génne si biti di ñaan sara foog naa nga dem def loolu noonu sax is moo parce que lu métti métti sañ na xala te yaa obviously I don't know for like all of this is because of the mindset mm-hmm. because Gambia fii da ngay toog nit yi the we have is liggéey amul fii Gambia soo defee business du work how are you saying that yaa ngi gis pël buy ñëw mu def mu staal wi staal wi plané coconut mu def ko mu dem ba si kanam nga gis ko ak cantine mu dem ba si kanam nga gis ko ak bitik mu dem ba kanam nga gis ko ak big big magazine and at the end of the day nga gis nga ne hey boy ñi su ñëwee Gambia dañ make halis. how do they do that Yo, do you ask yourself that question bala ngay toog nga ne xaalis amul dëkk bi liggéey amul bi mm-hmm. business du dia dox dëkk bi so xanaa nah, you ñu magic lañ amee jama you know what is the problem mm -hmm. it is hard to say but this is the fact we are lazy. very very very lazy. I mean yow bala ngaa jóg dem toog si benn place ne system ngir yàlla. waaw sara ngir yàlla wala ngaa round si moto yi ngir yàlla ngir yàlla. why can't you go and create something. yeah why can't you go and do something. Mm-hmm. like soo gisee borom pratique guru nga nekk di ko underrate wala borom pratique. waaw nga nekk di ko underrate. kooku at least. loo ko ondaleen ondaleen ak loo ko xeeb xeeb xeeb ñaxam la nekk di dundee waaye yow nekk yaa ngi raam si nit ñi di ñaan di saratu yaa ngi raam si nit ñi at times di sàcc seen i bagage loolu nekk na loo xamante ne nii yow si sa bopp sa it is it te lii soo ko xoolee nekk na loo xam ne nii like ñu bëri like all of us should play our part pour ñu discourage leen from this mm-hmm. man dama dee toog di wax ma ne like soo soo soo xoolee sa surrounding si there are certain things yi nga xamante ne nii nit ñaa ngi ko génnee di ko sànni comme like a wish. yeah wish yii nii mën ngaa dem nga nga toog nga xalaat. what can I do what can I do yes. yeah what can I do create something many uh, make your brain to function very well mm-hmm. waaye am na ñoo xamante ne nii ñoom propose ñoom noonu la leen yàlla bindee ñoom daal suñ xëyee suba biir bi fees génn si biti salaamaaleykum may leen ma lii may leen ma lii mhm. suñ paree dem toog that is how they live their life te foog naa lii nekk na loo xamante dañ ko war parce que comme ni ko waxee street begging nekkul métier nekkul métier nit ku nekk sa àdduna da ut métier bi nga xamante ne nii da nga see jàppande ko mhm. fii si doxut fii dox fële si doxut fii dox waaye yow daal da nga génn si rek ne yep dafa wara a happen once like ñun lool mo nekk suñu problème ñun dal dañ bëgg jog rek teki benn bés teki benn te lool du mëna am te lool du mëna am cannot happen it is not real. foog nga am ay jaar jaar te gis nga jaar jaar yi nak it's so painful mm-hmm. dafa metti ba bëgg dé bu lako kenn like yeah it's it's it's it's it is real mm-hmm. So génnee si biti di saraxtu di ñaan ñu ne wa man li moma gënal dem si place mm-hmm. boss bi di ma wax li boss bi di ma wax li boss bi di ma wax li la gis nga man na ko dé wax man ko ma gis nga doomi aadama da nga wara xam sa soxla bam jeex tak boos bi su la waxee sax fompal hens yow yaa nekkari ut fompal soo paree nga jóg loolu du la wàññil dara su la yokkalul dara du la wàññil dara waaye yow yaa ngee daw like nit ñi euh, traumatise like nuñ laa nuñ laa nuñ laa pressuriser nuñ laa pressuriser defal lii defal lii la mm-hmm. xam nga like dafa am yenn boos yoo xamante ne nuñ dee traité nit su fekkee ne yow nekkuloo muñ kat doo fa mën a toog nga ñëw rek hey jàmbaang yow lay def ni defal nii hey diw yow lay def ni defal nii loolu tax naa ñu bëri ñoo xamante ne duñ dee bëgg a dugal like comme like duñ dee toog dee toog si yeneen liggéey dañ dee wax ne like su ma demee boos bi di dos ma waaye yaay ut yaa war a ñàkk a jom yaa war a dof dof lu ba sa soxla faju comme su ma yaay daf ko muus muus lu ba des fi yow soo bilifee ne like you have pride bugguloo dem kenn di la condition you rather go to this, uh, you rather go in the street and beg. It's better than for you to go inside the office and to be controlled, yeah. to be dictated. I mean, kon di nga yaga di beg. te beg yi nekk na loo xamante ni du métier. du la help tey. Dula help elek. du la mm-hmm. gis nga like dafa nekk loo xamante ne woy la moo doon ba si sa city city. Mm-hmm. like tey so amee city city soo génnee ñu ne xëy jógal fi yow nga xam ne sa maam saraxatu rek la daan def. waaw amiin lii lii dafa nekk loo xamante ne man dama foog ne ne ñu ko nekk di def nekkuñ di consider ëllëg. waaye si doon considéré ëllëg duñ ko def mm-hmm. parce que like uh, human being bi dafa am yéene yoo xamante ne nii soo si nekkee di yëngatu wala nga koo def wéyu gémmiñ na moo nekka su ma la gisee ma ne xëy jamag jógal yow nga xamante ne sa sa sa sa sa sa maam woon yow da nga am wax nga ne seen famille bi di nga foofu la problème si nag du ñëwee at a gis boppam si société bi mm. fu mu génne nit ñaa wax lii loolu mu ngi nekk woy si noppam bi nekk na loo xamante ne ni war nañ koo bàyyi mm. it is better pour nga dem si office bi gars yi dictate la wala nga dem si liggéeykaay bi gars yi gars yi dictate la daal nga génn si ah, xam nga lu ñu la dictate dictate loolu is between you and your boss mm-hmm. loo fa mun ci sofa ak loo fa mun di face it is between you and the work you're doing waaye soo génnee si biti ngay ñaan di saraxtu loolu it is between you and the whole Gambia yeah and the whole public dafa romb rek ñu di stop mm-hmm. soo ñëwee tey yàlla dem ba may la nga nekk si place wala nga def dara nga ñëw nga maa jaay xaajaan wala nga maa jaay day naa la wax yow keñ nga fi nga xam ne si tali bi nga daan taxaw di ñaan sara I mean loolu dafa nekk loo xamante ne it can kill your spirit within one minute so moo tax ma ne like ah, Aida dafa bëgg a si loolu because ñi di ñu dee ñaan sarax yi suñ consider like mhm. their family like su fekkee ne yow da nga da nga decide ne like man du ma am doom du am leneen mhm. then fine if you don't but then you are having kids you are having family and you are you are you are growing loolu da dega dégga loolu da nga war okay lii if, if it doesn't affect me come no go waxee it will affect your kids. yeah man even even affect even, your kids. even even if you don't have kids. Mm -hmm. you don't have to do it. yeah parce que yow gis nga yàlla ak dogalam yàlla mun naa dogal lu nekk te mun na laa jël yow mi toog noonu si mbeera bi di ñaan sarax mu def la président waaw who knows parce que ñetti réew yàllaa koy taana mu jël la tek la fa legi si élection soo fa nekkee I mean, people need <laughs> need Our strip there. <laughs> Yeah, and then and then some people will will will, will continue to say that yeah. swing president we take beggar. And that will haunt you for the rest of your yeah, life. Yeah, and it will haunt you for the for the mm-hmm. rest of the world. Like there are certain. Uh, presidents or leaders getting ñu nekk position You do not leen di leen di leen di leen di leen like ten life before naka la gars yi and then and then how they were going with life Yeah, Definitely they made a deep inside them moo tax gis nga in life lépp mun ti def rek sóoraale ëllëg soo nekkee si street beggee bi nga wax ne like man bëgguma am doom am not mm. going a have a husband am not going to have a wife duma am doom faalew ma dama dem si street bi beeg bam neex ma duma dem liggéey duma def lii duma def lii <laughs> na bi lu waay def sa boppa nga yaa ngi def nga foog ne ay da nga koo def jàmm nga koo def o keneen a keneen nga koo def sa boppa nga koo def cause nobody knows yow lan ngaa soo ñëwee nga jiite place mm-hmm. nga nekk a very well known person wala wala nga nekk sax président nit ñi dinañ la fàttali sa sa bu bu si ñaan yàlla nag bañ la si nataal. waaw dañ sa loxo saay <laughs> because like that is that is that is that is that is that is that is what I what see in the Gambia. Mm-hmm. like soo demee ba nekk position. sa nataal yi yaaga yaaga yaaga yi nga xamante ne yow sa bopp sax. mosuloo xalaat ne mos ngaa jël nataal yi mm. nataal yooyu leen la day indil and then it will be like ñii fan leen jëlee lii ñii moo tax we have to be very careful in our lives mm-hmm. lépp lu ñoo def rek nañ si sóoraale ëllëg képp ku taxaw si mbedd ba leen la di beeg muy yaay nga muy papa nga muy oncle nga muy mag nga rakka doom set setaat please let us leave it ñu dem engage suñu bopp si li nga xamante ne nii it is decent ñu gis dinañu si naw ni ki gis la mu ne ah yow de mindaan nga di la moogee ne baax parce que sa ñax dem demuloo si kenn ngeen ne may ma si mbedd bi ngeen ne sarax ngir yàlla waaye bëgguma nit ñi wax ma mbindaan nga bëgguma suma boss wax ma nit ñi so I have to go out. di beeg. yeah, more than you know what the Gambians are, we are lazy because mm-hmm. because you don't accept to do certain things. One day then you you are def lu nga xamne is worse than that. Mm-hmm. Way gëna ci biti gëna ci biti jaay jaay jaay mo gën nga gëna ci biti di ñaan. Sure. It's better than that. So I think so that will take me to the youths also you not understand because most of the youths nga xamne ñu ngi complain la dëkk bi amul liggéey dëkk bi amul amul business du dee dof yi à so à those nga xamne du dee du dee try sax du dee def du dee def def what that footstep they will sit down every day nga nga jóg rek nga deew nga toog Mm-hmm. You just want to complain. You just want to complain what is not happening, what is not going right, what you what you wish to have, and what what are you doing? You as a person, what are you doing mm-hmm. to make sure that you have you, you create an impact? Like kuneka kuneka uh, your own ambassador. You want to create something that people can see. But don't don't also fo- don't only focus on what you don't have. Focus on what you can have and how to get it. so yow soo eewee everyday ngay wax ne bilaay dëkk bi du dee dem fenn waaye du dëkk bi nii because da nga dee xam ne si commune every sa ñun sax suñu commune nga amee foofu noonu benn koto kooku noonu ku ku ne like soo ñëw sax doo ko bëgg a nuyu soo ñëw sax balaa balaa ngay àgg si moom you you frown your face because da nga ne soo ko ne sa salaamaaleykum mu ne la dama foofu 25 dama foofu lii dama so ku nekk si commune ñëpp a ko sib and kooku he is able he is able in the society your reputation more than reputation is very important mm -hmm. reputation therefore overall important you don't know where you will be tomorrow you don't know who you will become tomorrow even not you you don't know your kids your your generations what what are they going to be tell you therefore overall mate it will it will never go never mainly you you write something on a stone it is never going to fade yeah. away so you so they failing. of foog ne yow sa bopp nga ko def nga sa sa sa su su sa they will all face that the same trauma because people will try to hunt them in all possible ways Holland, Nini, like imagine our leaders now when they are there when people try to hunt them in a new, new Holland, personally amuñ they will go to their family background just to come against you people will do anything to come against you so please for the sake of the love of for your family please balance street begging be street begging be. Some, some soo bëggee soo xamee like you don't have anything to do try to sell at home if you don't have any sufficient money teel yàlla jàppal yàlla nga génn day liggéey nit jaxaay dañ dee dem ñu ne jël food we have uh, jaxaay ñu ne jógee ba Guinea Bissau from other countries ñooñu nee ñëw dañuy jël dañuy jël food at the end of the month You ngi koy like you just food every week mm-hmm. three times in a week they pay you 800 sometimes you get charged like thousand dollars because ñun ñun ñun foofu noonu ku ñu dee foodal 800 la day charge mm-hmm. so nga gis ne like so kooku noonu are you better than her so kooku soo ko gisee si mbedd bi it will not be written on on her face that dama dee fóonal dama dee fóon dama fóon kat laa ñu bàyyi it is not written on her face maybe sax kooku noonu yow ak kooku noonu soo leen génnee sax kooku dafay jënd loo xam ne yow mënuloo koy jënda mm-hmm. yow mi nga xam ne you feel like you are big you feel like okay I am beautiful maybe because jaxaay tamit is a problem jaxaay is a problem they don't want to do it yes jaxaay tamit is a problem like <laughs> yow nga jël suma gémmiñ de bugg naa ñëw bala maa fàtte because soo ko xoolee like mun naa fully remember mhm. time boobu noonu childhood days like soo nekkee xale nii xam nga dañ naan dañ naan dañ naan defar ay butterscotch di dem school di jaay mhm, mhm. di def yeneen yi di dem di jaay so yeah de I don't I don't I don't doo ko dee gis léegi bariwul uh, danga naan gis ne like there a certain jàng yoo xamante ne nii soo leen waxee ne jëlal sorance bi nga dem jaay si mbir li la wax ne ñoom ko def. ñoom dañ leen a platé ñoom a platé Sorano di ko dem di jaay. wala nga wax leen dem leen jaay ndox ñu ne la ko def nii duñ ko def nii waaye am na suñoo xamante ne duñ ko nangoo def de waaye dinañ taxaw si mbedd bi di di di di. di ñaan waaye tamit jamang soo ko xoolee mm-hmm. like man dama ko de faral di wax euh, liggéey yi bëri soo xoolee li tax jànxay dee run away from it it's because of the society. parce que like dangaa am ku mel ni man koo xamante adduna bi yëpp tooñ nit rek moo fa nekk. ne xool leen ko jaaykati ndox bi. mu ngi ne sax waaw wala ñu ne meer ndox wala ñu ne meer lii meer lii ñu doon la mook. so if you are not that type ki nga xamante ne nii you are patient. you are patient doo ko mën a def mm-hmm. waaye foog naa ne tamit it is better. nga romba ay dem ay dem mi nga xamante ne nii dara sa fi ko tooñ lay def mu ne la jaaykati géeja bi wala mu ne la jaaykati jën bi daan ay da gis la si mbedda bi mu ne la yow mi nga xam ne saraxtukan nga because like gis nga there are certain individuals yoo xamante ne si dëkk bi ñoom propose ni loolu moo nekk seen ci kaw loo def ñu moog la si loo def ñu caricature la si so it's like yow as individual da nga war a try your level best ne lépp luñ laa caricature na nekk loo xamante ne it's from ñu man man ay prix fois nañ ay prix fois ñu gis ma ñu ne journaliste bi nga xamante ne nii yow wax rek. waaw da ngay seet dama day génne sax ñu ne yéen journaliste yi fenkat fenkat at least day recognize what you are doing. yeah at least ah, ne yéen ngeen xam ne lii rek yéen ngeen xam ne lële rek. man man I am I am I am a type of human being nga xamante dara safuma waaw su la neexee nga ne ma lii su la neexee nga ne ma lee la as far as man li may def man ko def wit xol bu set maa ngi maa ngi jël suma effort yëpp def ko fa mm-hmm. I don't care what you say as far as yow gisuloo ma si mbeera bi maa ngi taxaw di beeg mm. sarax ngir yàlla dama ko sante yàlla bu baax because like jamang soo ko xoolee nit ki mu ne la ne yow lii nga yow lii nga si loo xamante ne sa ñaxa la moo gën nit ki mu ne la yow béega nga moo gën nit ki mu ne la ne yow Sénégal bi yaa ngay dem moo tax man dama ko def ma ne with all doomi Adama Ndiaye luñ ma luñ luñ ma munti wax dama ko sante yàlla bu baax. parce que gisuma suma boppa si catégorie of people ñi nga xamante ne ñu ngi def naka su dul noonu. gisuma suma boppa ine catégorie of people ñi nga xamante ne ñu ngi taxaw si si si si bi di ñaan moo tax nag tey topic bi maa ngi ko waxee wit with with with with my heart. like ñu nekk di taxaw si mbeera bi ñoom itamit den si war a génne seen bopp ba mu set wicc ñu ñu jóg ñoom itamit fas jom. bu leen kenn wax ne ne ñaankat ngeen. bu leen kenn wax ne ne saraxtukat ngeen waaye nañ leen wax ne ne yow mi daan nga. wala yow defarkati pono nga wala yow uh, suude nga waaw wala ngeen jaaykati ndox nga wala jaaykati sorance be proud of that mm-hmm. because that because because because jaaykati ndox boobu wala jaaykati géeja boobu noonu that is what make you who you are yes of course so don't run away from those from those discriminations or from those caricatures man I feel proud if I see people ñu ne ma yow fenkat bi journalist yi fenkat leen dama dee ree mm-hmm. I feel proud if I see people ñu ne ma ne yow suñu la gisee da nga dee bëgg a def yu fi góor nga yaa ngi caméra bi dugg si biir ñi def di I feel proud of that because dama dee wax ne like alhamdulillah alhamdulilah ne lu ma nekk def nit ñaa ngi koo bàyyi xel. waaw yeah because gis nga like there are certain things in life it serves as a motivation pour individual ma gis jàmbang tey mu ngi pousse si bi ma ne xay yow nga xam ne pousse pousse pousse yow pousse pousse nga dee def yow jàngaay kenn du la law. waaw be proud of that. Mm. because kaddu yooyu noonu mooy tax yow nga gën a fas jom di def looy def. gis nga like dañ ko dee wan ne man dama ko dee always wax I always want people to be talking about Aida. Aida moom xamul boppam. Aïda moom su ñëwee muy jaay lii su ñëwee muy jaay lële su ñëwee muy gis nga bés bu ma bés bu ma naree dem toog ba bugg a give up in life su ma xalaatee wax yooyu yëpp da ngaa gën a push hard Yeah, you push hard Yeah, da ngaa gën a push hard parce que like su ma yaay daf ko dee wax always mu ne ma ne nin la sedda si gaale xaj waaye buñ la fa fekk ngay lekka waxal Aïda nii la mel Aïda nee la mel or whatsoever you want to say fine waaye dama mus a fekk si situation boobu noonu waxal ne Aïda beega la daf dee ñaan waaye dama mus a gis si street bi maa ngi taxaw di ñaan du ma mus a ñëw sa kër ma ne la jàmbang may ma lii may ma lële foo gis Aida mu ngee daan doolem foo gis jàmbang mu ngee daan doolem amiin loolu leen bu ko gis si dëkk bi we xamante ne nii dañoo ñaxaa njëriñu mm-hmm. we want to see people ñi nga xamante ne dañoo ñaxaa njëriñu duñ faale ni ñu la ñu wax waaye ne da nga nekk da taay ku la wax lii nga daw ku la wax la nga daw tey yaa ngi si bi di beek ñu ne la yow beekaa nga daw foofu léegi yaa ngi fëra di lii ñu ne la yow lii nga nga dawlul amin woot suy na ñoo la war di motiver beeg suñ la waxee ne yaa ngee beeg nga fas jom ne la séeda si gaale xaj waaye bu ñu la fa fekka ngay lekkat exactly su ma ñëwee ma ne la jàmbang yow nga xamante ne ni saraxtukat nga naa yaa a ñëw waaye même ma laa <laughs> ma ne yow beeg rek yow saraxtukat nga yow lii yow lële mm-hmm. na nga make sure ne nga rusloo Aida léegi mu gis la yaa ngi dawal sa moto mu xam ne ne <laughs> kii dafa fas jom dafa ñaxa njëriñu mm-hmm. the next minute it means ne shot nga Aida moutham. the next minute Aida do am lu mu wax. dafa mu ma daf lay respect tamit it means loo ko waxutee sax fly lay respect. and also pour pour gars yi like street bi ay begging tamit start saratu nekkul ne it's not like starting on the street. yeah we have civilized beggars. we have civilized beggars You know xam ne yow soo ko gisee do doo xam ne kii sax daf day beg. civilized beggars and I think most of those civilized beggars come to the no offense though but come to the ladies especially the girls. No, no, no, no they got. uyuba let me let me let me just break it down let me, let me break it down for you mm-hmm. okay you will see a girl ku have xam like okay ñoom ñoo mm-hmm. it's not like the ko frame I talk to them because, okay, because and then dañoo wax ne like I have a boyfriend ku nga I love him mm -hmm. he is this is the boyfriend I love mm -hmm. this is my normal boyfriend this is my country boyfriend. This is my uh, first, uh, shopping boyfriend. So you think that you are playing those those those men, and obviously there are there are repercussions for everything. Everything comes with consequences. Mm -hmm. All those men giving you their money or their properties, they are also they also want something and they will get something mm. so yo you are begging eh, eh, uh, uh, no other way around you don't from the come so new nga nga frame frame ko very nice story and they are very very good with framing stories <laughs> so new is a new one like a very very beautiful sad story you have the like so go degi very heart touching do you cannot escape it mm-hmm. obviously you must you must give them something some will come so you will see some some, some of these girls you know why so you know like most of the things they use is not from them it's not from them. They get it from they get it from other people. I'm not saying like men are not supposed to. You're not supposed to get things from them. But then, ask yourself this question: Why is he giving me this? Why is he willing to give me anything that I ask for? Sometimes even some things that I don't ask for. So lolo man for like it's not just begging ñu day taxaw si mbedd bi When you need to have the girls also doing this begging ñu nga have the like they eh, they think that money should come easy the easy money easy money So I mean, it is it is still begging easy money bu bu eh, most of it is is like uh, jàmm dama ko lay faral di wax. Hmm. gis nga alal bu lewut. Hmm. gani dof la suy ñëw du taago suy dem du taago. Hmm. like laal nga uh, party xale jigéen yi jànqa yi. which is da nga ko dee gis suñ society bi it's something that is true. waaye tamit gis neen affaire si soo ko xoolee it touches both the men and the women. parce que soo ko xoolee in the other way round. xale uh, góor yi tamit that is what they use pour ñu get jàng yu bëri. like ñoom duñ dem liggéey de dañoo toog mais suma mag mu ngi America. suma oncle mu ngi America. <laughs> so hello may ma lii may ma lii la aw ma lii la yow instead of yow nga jóg dem liggéey ko yaa ngi toog foofu naan aw ma lii la aw ma lii aw ma lii I guess. well, in this case, both parties have to change their yeah. lifestyles. Mm Like yow xale bu jigéen bi bala ngaa depend ne this is my noppal boyfriend. Yeah. this is my credit my boyfriend. boyfriend. this is my outing boyfriend and this is my fashion boyfriend. <laughs> so yow soo amee fashion rek anything loo war a clothing rek. nga dem foofu noonu di fen sa feni tooy pour rek mm-hmm. am sa clothes boo sol. I guess that is not the solution. Mm-hmm. jigéen so bëggee góor respect la dangaa dangaa dangaa dangaa fas jom wan góor bi ne man I don't lu ma am si suma àdduna maa ko liggéeyal suma boppa comme man na ma ko def faral di wax like suma benn sista maa moom loolu rek lañ dee xuloo saa su nekk su ma ko su ma ko waxee su dee ñëw like di indi certain topic man ko gis nga man lu dul suma ñaxa suur naa ko suma ñaxa laay dundee dangaa dégg mu ne ma àdduna bi fii nii képp ku nekk boo sañoon sa ñaxa ngay dundee ma ne ko sañ ko nag dundee sa ñaxa mm-hmm. because like some some some sometimes da nga dee toog yow as an individual nga assist sa bopp as a young lady as a young gentleman amin da nga war a toog nga assist sa bopp bu baax man est ce que man su ma ñaan nit ñi what will be the outcome like gis nga there are so many youths ñoom they don't think of the outcome of anything ñoom lu gaay gis rek seen soxla na faju today mm-hmm. seen soxla na faju te comme nu ma ko waxee ku dem di beek si mbeeda bi ak ku toog si kër bi ak keneen ak keneen ñëpp a si am parce que ñaan du du saraxtu du métier may ma lii may ma du métier te yow à cet individual so nekkee di gis nga nit doomi adam njaay fo def sa alal rek foofu nga am cadeau tay suma ñewon tay mané man dama tok dem school ñew rek di ñaan si nit ñi ma ñew may la jambang may ma lii diw may ma lii diw may la diw may the next minute yow so génnee ci biti nit ñi di waxtané suma mbé da nga naan ki kay amu dara ñaan rek la fi nekkee man ki duma ko lay bo gis parce que daf mané ñaan xaliss rek wa ñaan rek amin there are certain things yow individual bi nga war a toog nga assess sa boppa def self assessment nga xam ne ne lii su si duggee daf maa jural dara ëllëg xama bàyyi ko that one is out of my life nga toon a new chapter in your life nga dem liggéeyal sa boppa xosul ña euh, ñafe ñaxa njëriñu góor bu la si fekka daf laa respect waaye góor bu la gis si mbeeram nga meema lii meema lii yaa nekk suma boyfriend noppal yaa nekk suma boyfriend town trip wala suma boyfriend diina wala outing wala su wala whatsoever I mean góor boobu noonu du la respect te góor yi tamit sorry to say this some of them ñu ngi am attitude boo xamante ne ni it's very bad. like suñ buggee get uh, get jànqa bugg a mun nañoo dem beek àdduna bi yëpp ñëw. Mm-hmm. tegal la si nag fabrications yu du jee like suma papa ngi Amérique suma lii yaa ngi lii suma lii yaa ngi lele. man soo gisee tax ma nekk fii ni man nag la nga bàyyi si kër bi. man lii de man lii the next minute yow. ñi nga si ñi nga sukkandiku yaa ngi leen na ñaana ñaana ñaana ñaana ñaana ba bugg a dee like ma dama ko dee faral di wax ma ne there are certain girls si nga xamante ne nii ma ofo ne gaay seen boppay du dee du dee du dee reason yow does it make sense pour yow nga ñëw nga ne ma ne suma papa ngi Amérique suma fële ngi fële suma suma lii lii a ngi fële te yow yaa ngi si Gambia what are you doing in the Gambia why not you follow them so you are here as an agent of Baker uh, Baker uh-huh. nga nekk di le ñaan léegi nga allow nga expect ma man as foolish as those but do ma yow toppa la man tam toppa sa gannaaw di langal langal I guess these are the things that be it janxa bi góor bi mm. or whosoever mun ngaa discourage the next person yeah from doing it yeah mm-hmm. like comme yow dem nga yow góor bi dem nga ba realize ne janxa bi moom fa am jiko boo xamante ne daf ma def noppal boyfriend am credit boyfriend am uh, outing boyfriend am mm-hmm. bring that girl nga teg ko nga wax ko dëgg na lii nga nekk di def du du yoon du dëgg mhm. te loo munti def ëllëg loo ti def danga si war a sóoraale rek amin gis nga dayal certain people soo leen waxalee daf day change seen life. of course waaye am na ñoo xamante ne ñoom dara saful leen seen àdduna man I just wonder what kind of people comme laaj bi ñoo waxtaanee street begging bi ñu nekk di nekk si bi di ñaan di def ni am na ñoo xamante ne soo leen tegee nga waxal leen they will say yes I def ko. boole si nag seen xol ba mu jeex tax am na ñoo xamante ne. soo leen naa waxal fukki at ak juróom-ñaar sax duñ la faale ñoom assurance duñ bëgg a ñoom ñu ngi ko see am seen yoon nekkut waaw waaw te te ay na like dafa mel ni comme youth si tamit lu ñu war a sóoraale mooy like am yaa ngi yaa ngi am mhm. loo loo loo bëgg a am nga ñëw nga jël ko nga dem nga ñëw nga jël ko nga dem like ask yourself this question man dama dee wax loolu noonu I even tell it to people even my friends I used to tell them this man I would feel jealous if my father is rich enough ma toog ma gis ko ma this is my father's house I would I would be shy pour ñëw sax pour wax ma ma wax nit ñi la this is my father's house I need to I need to be jealous pour man tamit ma work more to get what my father have or something more than that but then now loolu daf day tax like most of uh, most of us like it, it is common to suñu boys yi dañ dee voilà lazy si loolu so, so yow you, you you are born in a very good family nga gis ne sa papa is very is wealthy is wealthy mu ngi a good house cars yow da nga use loolu as an advantage do doo liggéey do liggéey nga toog rek suba gars suñu la gars suñu soxlee dara rek yow nga ñu yónni la ak moto bi rek yow loolu loolu mooy loolu mooy sa mm-hmm. eh, métier bi yow nga éegi rek ñu yónni ñu moom moom di wax mm-hmm. doon doonu sa baay doon sa baay ko gën mm-hmm. bala ngaa wax ne ne suma papa moom moom lii suma papa moom moom lii yow tam nekkal papa nga am sa bopp suma moo gën sunu moo gën man maa moom lii moo gën sama papa moom moom lii sama sister ameen alal li papa loolu loolu loolu di sa alal because yow yaa ngi amee ay mag yaa ngi amee ay lii bala ngaa génn di dépend sa papa wala sa oncle wala whatsoever di wax may ma may mm-hmm. man moom passionally dama ko dee dama ko dee wax like bi it fii leen nekka wala fële leen nekka wala fuñ munti nekka nga toog nga ne lii maa liggéey mm-hmm. moo gën nga ñëw nga ne lii suma alal li mag la wala suma alal li oncle la wala suma ameen du sa alal especially yow jigéen waaw motax tax man dama ko dee wa dama ko dee mané jigen jigéen buy ndamoo alali baayam xamut aduna kos yow jigen nga nga génn dé alis goor bi mom soko waxé ni lisma lis ma papa la lisma ala alali papa as far as papa mu ngi dunda sa papa su dundé dund you you you already have a share yes waaye yow jigéen nga xamante ni da nga dem hmm. amin bi jigen bi goor bi goor bi goor boy ci bari nak advantage bobu non len dé jël Let's say Papa Sugini, I already have a share. Yeah. So small ali Papa, dama ko waranda mo. I have to sit. I don't have to work. Dama wara dem di ñaan family. Family A mema ma jëna essence. Mm-hmm. Family B mema ma jëna li. Family D mema ma jëna li. At the end of the day, yo nga gene ak moto bobu non di di di di di di di na jaxangay. Way am na na jaxay yo xamne tamit din oyof bobu. You have to think. You have mm-hmm. mo tax ki di ñew dima follow like na ne goor bobu non sax ku ko xol ba xol emu ci rek. Té su dawalé ñaan na ante may ma ma jënd essence demaat na si beneen jànq may ma lii ma dem jëndal I mean you are equal to ku taxaw si mbedd bi di ñaan sara you are equal you are loolu nekk na loo xamante ne nii like like be it family member or everybody in the Gambia we have to discourage it bala nga alaaw sa sa sa sa jarbaat wala sa doom wala sa sët mu ñëw di la wax may ma may ma teg ko nga wax ko dégg nga ne xole like gis nga jàmbaang lii yaa nekk na loo xamante ne nii it's very critical hmm. cause dafa am yenn xale yoo xamante ne ne bëgg a di wax ne yi léegi den soxor. yes soo leen ñaanee duñ I mean they are not soxor they want you to be a very responsible person tomorrow. of course suñ la bëggee di every day xamuloo nuñ leen liggéey xamuloo nuñ leen ñafee. I mean yow who are you tomorrow. ku la nekk di jox noonu su génnee àdduna. who are you kan ngaa kan ngaa nekk. soo gis nga like ñu bëri di ne wax ne kii bi dafa soxor. dama ko ñaan lii may duma. waaw gars yi suñu nekkee suñu demee out dañ de toog like they are doing mm-hmm. ñoom ñi like some of them ñi out am na si ñoo xamante ne ñu ngi def yen liggéey yoo xamante ne su doon Gambie fii duñ ko def ko def te yow mi koo ñaan su fekkoon ne yaa xam ne diw la moo def danga koo toogee waaw amin foog ñu discourage la foog ñu stop foog la from begging dem moo tax am na ñoo xam ne boo leen xoolee sax dañ dañ laa block waaw wala ñu ne la waaw dinaa ko def mm-hmm. waaye ba at the end of the day doo gis dara su ko defee nga ne family dafa soxor diw dafa soxor de man du ma dee wax nit ne da nga soxor Then la bëgg a they want you to work hard they want you to work hard they want you to know su ma duma la ko jox yeah da nga da nga mer sa loolu so meree da nga ko da nga use loolu as an advantage nga dem nga dem nga dem uti nga dem outil lo bëgg bu ba soo nga gis so ko amé nga ñëw nga ne ma ñaanoon naa la li jox lo mako de wante ma am na ko wa nga ñëw nga ti you you nga ko xaajaale you brag about you nga gis ne next time ko so ko waxé I need this ah even su fekkee ne like oh, nekkuloo di ko def all the time hmm. ah. next time ah. ya, kan kan so ko waxee rek ko ko daf ko jox bi ko dafa am dafa ki liggéey kat la kat la so this time dafa dafa stop so he or she needs help dina la jàppale waaye waaye waaye yow nga toog naa mayuñ ma mayuñ ma loolu seen affaire la leen toog foofu noonu yow xam nga nem def wax su waxee ba dara gis nga laay man man man man dama ko def always nit ñi suñ soo leen soo leen ñaanee mayuñ la wala ngay def dara ñuy wax try and work hard to shut their mouth of gis nga like comme soo ñaanee nit am na ñoo xamante ne ñoom dañ ko def intentionally ne kii moom du ma but to me I don't see it like they are they just training you how to get money. léegi yow at the end of the day soo demee ngay liggéey hard di ñafe di daan sa doole xooluloo ba i kenn xooluloo la nit wax yaa ngay ñafe di di am mm-hmm. at the end of the day yow koo doon ñaan sax mun naa in toon di la ñaan. waaw gis nga. so these are the things that that all of us have to put in our minds. Mm-hmm. kuy ñaan si street bi kuy def civilized one bi or whatsoever loolu leen war a def suñ si suñ boppay ñu graduate from that ñu graduate from accuse accusing people ne kii dafa soxor kii dafa bon su ma ko ñaanee du ma dee may kooku lu mu def ba am xaalisam mun nga koo def ba am ko hence yow cër yi nga am loolu loolu la ko yàlla may go and do the same yes if you have your own money nga lekk ko that is more beautiful and dama foog ne like most people like if you are if you are really ambitious ah ku mm-hmm. ko xam ne dafa ambitious you your parents have money maybe your uncle your father whatever whatever kooku dafa am xaalis you already depends on Kokono. Ask yourself this question. what am I doing that my children can also brag about my own sure. thing? But then if I have to depend on my parents' property, so you man man suma papa su even though suma papa su ah, ah, man kenn la am mu dem mu dee man inherit property boobu So my children when they come when they are, when they are enjoying those properties, so then you feel like okay our dad is lazy. Mm -hmm. This is our grandfather's yeah. property. So yeah. sometimes you can see it even in some movies. Sometimes you know we watch movies but we don't see the message in it. Mm -hmm. You you watch some movies you see ku nga like mu eh, mu papa mu inherit kooku noonu property am bi kooku tamit mu demee si kanam like doomam mi ñu ñëw maybe yow ak doom ngeen fight nga bëgg a def nga nga bëgg nga bëgg a kooku noonu mu génne si bi nga ne ko ay génne suma kër When I talk to someone, sometimes the guy gets down mu ne ko moomuloo kër this is my grandfather's house. and you, and I'm not going out because you don't own it you don't buy it your money you, you because because my grandfather is there that's why you are here that's the reason why you are here so loolu da guy gets like that is not something that you should be setting that's not an example you should be setting for your kids if you know that you are ambitious you are truly you have you have plans you have vision. try to work for your your your, your kids like have have have plans like okay man tamit the war a am family man tamit dama war a am doom yoo xam ne like dama war a grow up I want them to grow up and be like this is my father's property and if they start believing that this is my father's property I don't want them to brag and depend on that only I want to train them to also have something for their own kids dëgg bi su demee noonu everybody training everybody like that one another suñ training like that dëgg bi dafay war a yomba everything will go easy and smooth but then if you want to be dependent we are like that foofu fii moom kay la des like a culture sa benn beneen keneen mu génne si famille mu dem Europe rek. Mhm. toog na toog toog na defuloo dara yu la du anything nga nekk kooku noonu nga nekk man ma bilaay man maa nekk fii man maa nekk man maa dee ron RNC si fii si dëkk bi mhm. xam nga man moo tax man def ma lii may def li may def loolu dëgg la. because boys we use that as a, as an opportunity to brag in front of girls like su we we be like be like man ma xam nga man bëgguma tukki because man su ma demee kër kan mooy kan mooy tekki ak kër bi kan mooy def lii kan mooy def lii xam nga suma oncle nekkul fi maa ko run errands like that ask yourself the question why would you run, run an errand for somebody if you have your own errands to run but you are not running your own errands like what are you doing what is your purpose like you, young boy, def yaa feel like you have a purpose soo gisee sa boy yu bëri day used to because mm-hmm. den xam ne there are some girls mm-hmm. ñoom begging rek mooy seen attitude kii mooy sama boyfriend eh kii mooy sama boyfriend. but they don't even think the reason why you are giving the story. ñoom ñoom soo woyee story bi na story bi beautiful and then li xam ne mm. outcome bi xaalis bi dafay ñëw wala property dafay ñëw they are okay story bi even it doesn't make sense they just want they just want to give them waaw waxtaan bi bëri na nag <laughs> ba tey di leen fàttale yéen a ngi seetaan seen Beyond the Line so waxtu bayi ni nii dañu jaamal suñ caméraman bayi def ni di defaat ni rek ñu la gis <laughs> fim mu toll nii rek jàmm ak ñu tagato ah sañam ba caméra koma sañam ba ngano bandigol biyo gale la moy len jaamu do nga fa nga fa ñene fam pare da ni mom man nga ko do ni fam ji ah ko nga fare nyaama min ka ko wala ñi dali rudi di no ko ko di mi yalla ko ah siara bam ko kam baake mul baake kan silo ka nga man ke min fon kan lo silo ko le dem maka ba di rudi sa ko mul bi je mi ko ko dano ke ka ñaa civilized beggars min yalla ko da da fondin kir fo wala do fondin kir mi yalla ko e ba tara siri la mul ba tamal dula itara je fongi be ko le ba fale ko sura nyina ni na dol bi je dol bi ni ma ke ya mas ka ko man beti ya mo jawulde aman ka jaw ya tale dolbi jawa ka kana pour ka tan ni la ko min ko lafte fani ya do ku ya su de e la taro soro wo fana man da wala min ya non ke le wulula ya soro ila peren sol ta ko dum mi ko kudi tewbe wulula on ko ya soro ida basiri jang iban ra na jang ba siri bo e ba tider ka wala nafulol abedi ada la ha ka tider mo ila ila ila wulula na nafulo bari fana nyina ka katakela puri fana dingol sa tider fana na fulula isa je dingol sa ko fama la do ko fama la ñin doku a ah, ñin na biyondo lay shooting ka min final ala ah, eh, eh, araba ni araba barin sa fal time of lay bon jam fa bawo sa jam bawo camera ko ma wan signal la nyaawo nya ah, sa fal ala baraka baake ale ko ka gamen tanes fulo ale continue ka fulo and also to remind you viewers subscribe to the youtube channel and also turn on the notification comme lu ma len ko de waxe like anytime please leave a comment on any topic that you want us to talk about. We the soul is beyond the line. Just so be it. It's a question that you should answer yourself. Beyond the line, we step outside the box. We talk about everything. So many everything. I mean everything. Naked everything. Anything you think of, we talk about it. Just leave it in your comment section, and that's what you wanted us to talk about. Just leave back off of Fununu. We will look into it, and we promise we will bring it on board and then discuss it. Like we also said, this topic, this show, is not just about me and Ida coming here and talking in suñ waxee dañ bëgg a yen. also dañu that you bring out your own opinion bring your own opinion your advice you can help somebody outside You ñun suñu here, guys suñu déggudee maybe you or you write it on your comment section someone else might read it and then it might be something that can help the person we help we are just trying to heal this is just for the love of the country we are doing this to heal, to help the Gambia heal again and help the Gambia go for to where we want it to be so so yeah so <laughs> we are saying bye bye until we come your way next time this is not the end of the show we are just this is a break du ma wax baay ba su ma waxee baay baay dafa mel ni jeex na so lii break la ba next week suñ delluwaatee ñu jeex yow yaay wan waaw mu ne moom du <laughs> ba tey rek eh, am na solo trop wax nag neexut su fekkee wax neen bi loo xam ne eh, méngoowut ak neen ko fagee ñu ngee jégal su fekkee nag eh, wax neen bi loo xamante ne ni noonu la war a demee ñu xam ne ne ba tey nag ñu si yoon bi di jàng di leen jaajëfal seen déglu gu rafet bi yoon da line show toogalal leen fi di Aida Kébé ak Ibrahim Jambang euh, comme ni ko waxtaanee rek euh, every top euh, bu nekk di dañ fi indi topic yi nga xamante ne is interesting topic yi nga xamante ne ni people are not talking about it nii mu ngi affect Gambia bi a lot ñu indi si nag possible solutions GRA start leen di tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy street xam naa civilized beggars ñoom doo leen a tax because doo leen a identify oh. dem waaye dina nekk loo xamante nii dina am solo torop si biir di leen bu rafet ba baay ba beneen